بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom mu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko balaa may def dars bi rek ma présenté leen sama mbokk bi ma àndal léeg-léeg am na ñuy bëri di dugg ci youtube bi ci waxtaan yi ñuy def moom moo ko ci dugal kuy suivre internet bi Facebook wala YouTube di nga gis lu bare bari ci ay programme diine yu mu ci dugal def ñoo gane si nag bàyyi ko France mook soxnaam ñoo ngi fii nii ci seen booru dëkk bi fii waaw CM Grand Yoff bi foofu lañ nekk dama doon jokkook moom après mu yëgal ma dafa bëgg a fekkee sama programme comme samedi tafsir ma ne ko géejawaay dafay sori tey jii am nañ programme Grand Yoff incha allah bismillah xaar ma après dinaa la jëli loolu mooy waral tey mu ñëw fekkee dars bi moo ngi tudd Jamil Bokande incha allah kuy suivre sunu programme yëpp di nga gis moom moo koy dugal YouTube Demba mooy dugal ci site bi moom moo yor YouTube bi moom moo ko ciy dugal ñuy ñaan yàlla tabaraka wa taala mu fay ko ci liggéey boobu nga xam ne mu ngi koy def di jàpp ci daawa bi jàpp ci liggéey lislaam bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp lu mu jàppale liggéey bi yàlla na ko yàlla def fi misaani xasanaatihi yawma la yanfau maalun wala banuun tey ñoo ngi jël ñaareelu parti ci téere bii di maza yaani intimaa'i lil islaam tey deuxième partie bi mooy an akuna musliman fi ibadati mooy ma nekk jullit ci jaamu gi may jaamu yàlla maanaam nit rawatina kii ñuy wax ab jullit mënul jaamu yàlla te nekkoo jullit mënoo jaamu yàlla te nekkoo ab jullit ndax ab jullit la yàlla di nangul ku dul jullit yàlla du ko nangul moo tax munoo def benn jaamu yàlla ak bu mu mën a doon wala nga def lenn lu baax ba yàlla nangul la ko boo nekkul jullit su fekkonte ne ku def lu baax rek yàlla nangu ko yàlla jël ko kon da ngeen di gis nasaraan yi ñoo ñu ëppale ndax ñooy tabax hôpitaux yi lu bare bari ci ay jëfu humanisme ñoom ñoo koy def ñun li ci ëpp dañuy yàccaar rek toog di xaat waaye gis nga loolu ñuy def lépp ak li muy bari bari bari bari dara la ci yàlla dul nangu bu yeboo ñu tabax ay teen bu yeboo ñu tabax ay hôpital bu yeboo ñu joxe ay don yàlla du ko nangu ndax innama yataqabbalu llah minal muttaqin ku ragal yàlla la yàlla di nangu jëfam ku amul imaan ragaloo yàlla yàlla du nangu sa dara moo tax cheikh bi bi muy présenté téere bi mu def deuxième partie bi an akuna musliman fi ibadati mu ne loolu nag al ibada fi l islam hiya nihayatul xudu jaamu yàlla ci lislaam mooy jeexitalu toroxlu kii jaamu yàlla day toroxlul yàlla kii julli lu muy def day kàbbar day rukkoo day sujjóot loolu toroxlu la kii aj lu muy def day futteeku ba def yaramu neen ab silib sax du ko sol toroxlul yàlla di tëdd ci suuf ah simmeeku yéreem sori ay soxnaam sori borom këram moo tax mu ne nihayatul xudu jaamu yàlla fekk nit ki sentirul ci boppam ne moom dafay toroxlu jaamoogul yàlla tabaraka wa taala foog nga toroxlul yàlla ci jaamu gi nga koy def bu dee koor bu dee aj bu dee joxe azaka bu dee julli foog nga toroxlu même jàng alxuraan sax boo lale si siyaada foog nga toroxlu boo toroxlul yàlla wàcce woo say mbagg suufe suufe woo ci yàlla yàlla du la nangul dara jàppal solal yére bu la neex demal jàkk bu la neex kàbbaral di ngand ngand lu di gonfale ay lex yàlla du la ko nangul beneen bi mooy ibnu taymiya bu mu ñuy firil ibaada dafa ne al ibaadatu ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yarda jaamu yàlla tur la woo xam ne dafa boole lépp lu yàlla bëgg te gërëm ko lépp lu yàlla bëgg te gërëm ko moom mooy ibaada beneen bi mooy al ibaada boobu laa tusamma al ibaada illa ma at tawhid ibaada boobu kenn du ko tuddee ibaada lu dul mu ànd ak tawhid kennal yàlla foog nga dindi lépp sa xol nga def ci yàlla kese mu nga doog a nekk jaamab yàlla beneen bi mooy mu ne wa qimmatu shuuri bi azamati al maabud mooy yow miy jaamu yàlla foog nga am yëg-yëg ci màggaayu ki ngay jaamu foog nga am yëg-yëg kii julli day am yëg-yëg ci yàlla dootul gis lu dul yàlla moo tax dafa am benn waay bu nopp benn xale bu jigéen xale baa ngi tudd Layla Qays moom la tudd ku góor ki Qays moom mu ngi tudd Qays ku jigéen ki tudd Layla mu nopp Layla mu tourné benn koñ rek mu gis benn xaj xale yi ne ko xaj bi de xaju Layla la mu ne ah xaju Layla kon de su ma toppee xaj bi dinaa gis Layla rek mu topp xaj bi xaj bi dugg àll bi mu topp ci ginnaaw xaj bi daw mu romb ay nit di julli moom romb na leen ma nga topp xaj bi mu dem ba gis Layla toog fa ba mu neex ko mu def demi tour nag léegi mu ngi ñibbi nag mu ñëw romb ñooñu doon julli ñooñu ne ko xay si yaa bon mu ne lan laa def ñu ne yow nga romb ñu fii ñuy julli nga topp xaj naan da ngay seeti Layla mu ne da ngeen doon julli ñu ne waaw mu ne julliwaat leen ñu ne ko lu tax mu ne man gis nga bi ma nobee Layla gisuma kenn dorom gisuma leen yéen ndax man Layla rek laa gis yéen ngeen gis taxaw ci kanam yàlla di ma gis julliwaat leen wax na dëgg kuy julli yàlla rek ngay gis waaye di julli di gis keneen di julli di xalaat keneen ah allahu akbar moo tax mu ne qimmatu shuur imam ali su demoon jihaad ñu jam ko gaa yi nee nañ bala ñu koy faj dañuy bàyyi ba muy julli bu ñu li xaamee ba ñuy julli rek gaa yi daw ci góom yi commencé ah jaas yi ñu ko dóor mu dagg ñu commencé ko raxas di ko ñaw def ci xorom indi ay ay ñax yu ñu dëbbate ay mbuum yuy faj ñu commencé defar su paree mu gis gaa yi takk ko mu ne ah kon da ngeen ma doon faj su paree la koy xam nit day yëg azamatul maabud màggaayu ki ngay jaamu kan nga taxaw ci kanamam bi ngay taxaw ban baat nga wax allahu allahu akbar lu muy tekki am na kabir waaye boo ne akbar ismu lan la tafdil dafa màgg lafzul jalaal allahu akbar yàlla gën a màgg lépp léegi loolu da nga ko war a sentir da nga ko war a dund waaw da nga ko war a dund nga yëg ne màggaayu yàlla tabaraka wa taala amul luñ koy nattable nga toroxlul ko moom yàlla tabaraka wa taala loolu mooy al ibada soo gisee ñu ne ngay gis nit ku dem ci kanamu sëriñam simmi mbax na bi simmi dàll yi raam ñëw loolu yàllaa ko moom loolu toroxlu la waroo nuyu kenn di summi baax ne ci mbindéef yi soo ko defee bokkaale nga parce que da ngay dugg jàkka doo summi mbax ne da ngay dugg jàkka doo raam di doo raam këj ngay def summi sa daal yi fëgg tërëx tërëx ñëw taxaw léegi nag nga bëgg a dugg saalu nit simmi dàll simmi mbax ne tekki sa yenn saa yi sax nga tekki say verre yenn saa yi nga fay sa portable parce que nit ngay waxal yenn saa yi nga dugg jàkka bàyyi sa portable bi di kending kendingi parce que kon yaa ngi màggal yàlla faut ñu def attention yàlla kenn waru ko dendaleeg lenn yàlla kenn waru ko bokkaale yàlla kenn waru ko gam-gamle ak dara mu ne wahiya ka daariji sila bayna al maxluuqi wal xaaliq jaamu yàlla bii moo lay jokkale mooy buum gi lay jokkale relation sa digganteeg yàlla su fekkee am na buum gu la tënk sa digganteeg sa borom mooy jaamu gi al ibaada moo la may relation yaag yàlla ngeen di jokkoo portable baa ngi nii wala portable bi sax dafay sori pot lampe baa ngi nii kër gaa ngi nii li mooy pot lampe bi li mooy kër gi waaye kër gi ak pot lampe bi amul poto courant bu leen lëkkale ndax kër gi dina am courant ah pourtant jege na poto bi jege na kër gi de waaye fekk kër gi xëcc ñu courant ci poto bi du ñu am courant buum googu moo leen di lëkkale mi ngi mel ne portable ak réseau ak antenne Sonatel bi portable baa ngi nii bees sax antenne baa ngi nii mais portable bi amul réseau borom du wuyu ba yowmal xiyaamati balaa muy wuyu rek portable bi am am réseau ñun nag sunu réseau bu nu taqaleeg yàlla mooy al ibada moo da ngay jàng ci yàlla mu ne wasjud waqtarib soo jegee soo soo sujjootee rek jege nga yàlla soo sujjootee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na amma rukoo fa azimu fiihi rabb wa amma sujud fa aksiru fiihi du'a su ngeen rukoowee màggal leen yàlla gis nga rukoo kenn du ci ñaan mu ne bu ngeen sujjootee nag ñaan leen yàlla Abdullah ibn Mubarak nee na man bu ma sujjootee dama daan ñaan yàlla di ñaan yàlla ba sama soxna xorom bu muy xoromee cin bi sax dama koy ñaan ndax yàlla jege naa yàlla yàlla nee na ñaan ma ma may la kon loolu mooy jokkale diggante yàlla ak jaam bi kama annaha zaatu asaar amiqa fi taamul ma al xalq gis nga ñun ñi sax pour sunu dund baax foog jaamu yàlla dugg ci li tax baaxuñu tey mooy suñ jaamu yàlla moo baaxul inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yàlla nee na julli day tere nit def lu bon julli kuy naan sàngara su jullee dëgg dootul naanati kuy julli dëgg du fen kuy julli dëgg du sàcc kuy julli dëgg du wor kuy julli dëgg du mooy yàlla ndax julli gi moo koy teree def inna salata tanha anil fahshaa'i wal munkar jaamu yàlla yëpp fu mu la yóbbu mooy da ngay ragal yàlla yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum ibaada la yàlla wax ibudu fu mu la yóbbu mooy ci taqwa koor fan la la yóbbu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum aj ci lan la lay yóbbu fa tazawadu fa inna xayra zaadi jàng alxuraan fan la la yóbbu xuzu ma ataynakum bi quwatin waskuru ma fihi laallakum mboolem ibada tabaski sax ci ibada ragal yàlla la yóbbu tabaski lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum kon gis nga jaamu yàlla yëpp mu ngi lay yóbbu ci ragal yàlla sooy jaamu yàlla da ngay ragal yàlla ragal yàlla mooy lan mooy defal li la yàlla sant bàyyi li la yàlla tere loolu mooy jaamu yàlla mooy al ibada mooy ragal yàlla tey jii nit ñi bu ñu juboon nit ñi bu ñu amoon ragal yàlla kon dëkk bi du mel ni kon président ministre député sëriñ mbindeef yi nekk ci réew mi yëpp réew mi day jub Omar Abdullah ibn Omar fekk na sàmmkat ci àll mu ne ko dañoo xiif dañoo bëgg nga jaay ñu ci sa xar yi benn xar sàmmkat bi ne moomuma ko mu ne ko boo demee nga ne ki ngay sàmmal till yi ñoo song xar yi sàmmkat bi daan ne Abdullah ibn Omar ayna allah ana yàlla ayna allah ana yàlla Abdullah ibn Umar téye sikkim bi borom sikkim bu mag la woon bu gudd mu téye sikkim bi poñe ko naan qaala ra'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla papaam omar ibnul xataab doon na surveiller kër kër yi guddi mu dégg benn xale bu jigéen di wax ak yaayam naan yaayam naan ko ne soow mi nañ ko njar benn paan la ñuy yóbbu nañ ko yokk def ko ñaar yaay ji naan ko ah loolu omar da koy tere de mu ne ko omar nekku fi doom ji naan ko in kaana omar laa yaraana fa rabbu omar yaraana gis nga jaamu yàlla moo tax gis nga ñooñu seen dëkk amuloon policier amuloon gendarmerie amuloon douane amuloon eaux et forêt amuloon jox leen ma yeneen koor yi te dëkk ba dana cocc ndax la nit ñi dañ leen a yar ci ragal yàlla ñaari nit kii baykat la kii dafa jënd tool bi ci baykat bi bi mu demee di bay tool bi mu for benn kanz benn valise u xaalis or mu for ko ci digg tool bi pikk bi këj këj rek mu gas rek valise or bi génn mu ne yii lii de xam naa ki ma ko jaay daf koo fàtte xaaral ma delloo ko mu yóbbul ko borom tool bi mu ne ko xàmme nga ma mu ne waaw mu ne yaa ma jaayoon tool bi mu ne waaw waaw wax nga dëgg kay wax nga dëgg na nga def mu ne waaye bi may bay tool bi dama faa for benn valise or xam naa yaa ko moom da nga ko faa fàtte moo ngi nii may ni kooku ne ko hee jëlal man tool laa la jaay jaayu ma la or sa valise bi yaag yaag moom fu ngeen xam jëm leen moom ma ko kooku ne ko duma fi bouger mètre ndax yow yaa ma ko jaay mu ne ko sawaay yow yow da nga ma bëgg a indi histoire xaw ma kooku génne jaasi kële génne jaasi ku nekk daan jëlal na fi jógee ñu yóbbu leen tribunal la moo leen boole kii daf maa jaay tool may bàyyi tool bi ma fekk ci benn urus wuli si urus mu ngi nii ma delloo ko mu ne du ko jël ñu ne waa ñu nu mu demee mu ne man tool laa ko jaay jaayu ma ko urus fu mu ko jëlee moo ko xam sama yoon nekku ci tool laa ko jaay jaayu ma la walisu xaalis te ndeysaan juge bi daal di jéemu mu ne kenn ki borom tool bi yow am nga doom bu jigéen mu ne waaw mu ne keneen ki yow am nga doom bu góor mu ne waaw da ñaata at la ñu wax moole mu ne dem leen ngeen indi leen ma maye leen ñoom ñaar lii nekk can bi dem leen ngeen leen ñu maye leen lii nekk can bi maa gis nga ñooñu jaamu yàlla moo tax ñu baax yow fii tey boo foree kalpe da nga naan nii su la kenn gisul nga ne ay xéewal xéewal dikk na de xéewal ban xéewal na xéewal moom mooy problème ba pare da ngay for kalpe nit nga fekk ci 10 000 nga dem reere 10 000 yi ndékki ci tisba fajar jot nga taxaw naan yàlla allahu akbar Iblis naan la yow allahu akbar yow ay nax sa bopp c'est ça le problème bi nga naan allahu akbar Iblis dafa ana 10 000 ngay ngay jéem a saale affaire bi sa nopp naan noo xëy wala dama ko for fekk yaa ngi jàng fatiha léegi nga pare nga bëgg a yàlla allahumma ya rabbi doo nangu parce que innama yataqabbalu llah loolu muttaqin loolu mooy sunu problème sunu problème yëpp mooy jaamu gi ñuy jaamu yàlla dañu jàpp ne ay mouvement la julli yi aji màkka da ngay gis fi ko aji màkka ñëwaat ana alaaji dem na làmb ja to alaaji wayi làmb on alandi ko alhaji kono ala haaju yéen ñi tukulóor bon on nga onon ngandi o wona alhaji parce que o ala haaju jaamu yàlla daf lay yëgloo màggaayu yàlla xoolal yaay Aïcha dafa xool yonent bi ne ko yonent yow yàlla baal na la sa bàkkaar yi nga am yëpp ak yi nga amut léegi yow looy julli mu ne ko afala akuna abdan shakura ndax duma nekk jaam buy sant yàlla ndeke jaamu yàlla du ay geste li ñuy wax nii julli taxaw rek dóor mouvement taf taf taf kar ràkk yow mën a torop fajar jot nga yow dóor sa ñaar raak ñëwaat toog jàpp sa ñaamul tisbaar jot nga dóor kaat ay mouvement la est-ce que julli nga dëgg-dëgg ndeysaan Abdullah ibnu Abbas dafa toog ci jàkk yoon benn waaye ñëw de kërëj kërëj kërëj kërëj kërëj salaamaaleykum mu ne ko jullil julli woo waa ji jóg kërëj kërëj kërëj mu ne ko jullil julli woo waa ji ne ko lii laa mën mu ne ko ñaata at ngay def lii mu ne ko 40 ans mu ne ko wallahi boo ci deewoon safara nga jëm ah il faut ñu contrôler jaamu yàlla yi dafa am lu waram lu mu jur ci ñun yonent bi salaa salaam bu daan julli sahaaba yi neen dañuy dégg dënn bi azizun ka azizul mirjal min al buka dañuy dégg dënn bi muy xiixat xiixat xiixat ndax lan yaay Aysa nee dañ daan waxtaan ak yonent bi waaye bu julli jotee day mel na xamatuñu parce que jaamu yàlla moo jot naka noonu ñaata yoon la dégg ñu dégg kuy jàng alxuraan ah benn sàcc dafa dugg ci kër di sàcc mu fekk borom kër gi dinaa fi la guddi 3 heures du matin kii naafi la mu ngi naafi la moom dégg na ay biru wi rek mais mu ngi continuer di jàng alxuraan surtout xadit alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alxaq rek sal sàcc bi salleeru daa daan dee waa ji mu jullee pare mu ñëw xool mu kii sàcc la fenêtre bi la daaj ji mais la moo ko rey ay alxuraan bi mu dégg sàcc démb yi ñoo gën ilimaanu tey sàcc démb yi ñoo gën ilimaanu tey sàcc bi dafa dégg alam yaani lillazina amanu an taxsha qulubahum li zikrillah wa ma nazala yàlla nee na ndax jotagul yéen ñi gëm yàlla seen xol yi toj explosé ndax yàlla li mu wàccee loolu moo rey sàcc bi aaya alxuraan fii kañ la aaya alxuraan di re di reeti nit fii kañ la fii nit di julleeti di jooy fii kan la fi nit di defati dara yëg yëg yëg ne maa ngi jaamu yàlla dëgg dëgg tey am naa guuw bu lay indilee léegi léegi ñu indil la ndambe ak mburu fekk reeragoo woon ñu tegal la ko nga xam looy sentir mun na tegale kaasu café def ci meew boo guuxee di nga am loo yëg wala loo yëg bu ndindi la cere baase salte di nga yëg wala loo yëg waaw bu boo jullee loo yëg ñun ñëpp julli nañ gee lu ñu yëg julli nañ timis lu ñu yëg c'est ça pourtant mun la tegalee lekk olof yi nee nañ la mu saf waaw gis nga ñu njëkk ña da nga daan dégg ñee ñu koy wax ñu njëkk ña dañ daan jaamu yàlla nga gis ko nii xoolal waa ji noboon ndaw si mu ne ndaw si damaa bëgg ñu njaaloo ndaw si ne ko amul problème loo may jox mu ne loo bëgg ndaw si ne ko waa d'accord mais dafa am charte luy charte mu ne am na benn mosquée bu nekk fee da ngay dem nga julli 40 jours nga ñëw soo ñëwee sax bul joxe dara ba ma woo ma wuyu la waa ji génn loolu rek daw bu mu demee mu def fa 5 jours. six jours sept jours huit neuf dix jours mu génn ñibbi fàtte xale bu jigéen bi ba mu am weer rek ñu daje ci koñ bi xale bi ne ko waa kii du sama waa ji mu ne aawus billahi mina shaytaani rajim parce que julli gi am na lu mu def ci moom demul woon rek pour kërij kërij kërij kërij kërij keneen ki benn xale bu jigéen moo doon tabax lu jàkka bi mu tabaxee jàkka ji ba jàkka ji nekk ci digg liggéey bi mu ne damay seeti ji jàkk ci léegi nag da ngeen di génne liggéeykat yëpp ci biti bu fa benn góor nekk ndax dama muur sama kanam bi dama ko bëgg a muur yi pour ma xool jàkk bi ñu génne liggéeykat yëpp ci biti mu dugg bi mu taxawee ci digg terrain jàkk ji mu dindi kanam gi ndeke am na benn waaye bu nekk ci kaw ci engins yi wàccul rek waa ji seen kanamu ndaw si ndaw si seet na ba pare dem liggéeykat yi duggaat nañ gaa yaa ngi liggéey mais waa jooju mënatul liggéey ndax dafa gis kanamu ndaw si parce que ndaw si dafa rafet mënatul liggéey xamatul sax nu muy ni ñuy dawalee engin bi xelam nekk ci ndaw si mu wàcc xelam nekk ci mu ñëwaat liggéey ba liggéeyatul mu ñëw ne yaayam dama am problème yaayam ne lan la mu ne ko doomu buur bi laa gis damaa gis kanamam bi te su ma ko takkul damay dee kii foog ngeen may ma ko wala ma dee yaa ji ne ko xaaral ma dem waxi jiko ñu ne yow baadoola bu bon bi nga ne nga gis doom buur noo koy gisee mu ne ba ma demee ma ñaan garde yi gisuma papa ji doom ji laa bëgg a gis mu ñëw mu ñaan ñu bàyyi ko mu dugg mu ñëw mu ne ndaw si sama doom neen da laa bëgg te su la takkul day dee mu ne ah lu waral loolu mu ne juru sàngam bi nga demee ci liggéeyukaay ba jàkka ja mu ne waaw mu ne da ngaa génne ñëpp mu ne waaw mu ne waaye moom génnul woon rek ndaw si tiit mu ngi woon ci kaw engin bi mu gis sa kanam gi ndaw si ne wax nga dëgg maa ko tooñ kon il faut man nangu mu takk ma sinon loolu moom mënuma ko leel sama borom waaye dafay am charte nag soo demee nga ni ko na dem place sangam am na ñu fa nekk mu ànd ak ñoom ñeent fukki fan jaamu yàlla après mu ñëw ñu def mariage maay def lépp maay joxe can après sax fii lay dëkk si ci kër gi pale bi yaay ji kontaan ñëw wax ko waa ji waa ji ne ko lool rek la la wax waa ji buub ay dëbësam waaye xam nga lan mooy mbetteel waaja ba mu demee ca la ko yaayam sax ñàkk ndax jël sawaatul ma nga ca jàkka ja toog waxuma la ndaw si yaay ji sax gisatul waa ji ndax yaay ji pare na ci yaay ji waa ji pare na ci àdduna ma nga ca jàkka ja toog nee na li ma ñam fii moo ma dàqal téeméer yoon ndaw si voilà loolu la jaamu yàlla yi chaque jour dañuy wax du ay geste yu ni ay du ay déedéet il faut boo koy def nga mu war a am moo loolu moo lay jural changement koor gi noonu la wala koor ñun ñi ñëpp a ngi ni toog ba cëg dañuy nekk suñu biir kër yi suñu soxna yi toilette ba jekk ñëw nga xool sa soxna te da ngaa woor loo koy wax kaay fii toog fii doo ko sax sentir moom it mu lay romb du gauche à droite xoolal di ngeen contrôler seen bopp da ngeen di yëg ne da ngaa woor soo bëggee sax soo génnee ci mbedd mi sax nga bëgg a gis lu bon nii ngay def xoolal ñu bon ñii rek nga ni nii doo xool de moom kay mun ngaa xoolal ñu xaraam ñii xoolal ci ñi nga xam ne ni gis nga yaa ngi gis nga mais bu koor gi jeexee nga commencé moo tax du dem daa loolu mooy wax bi loolu mooy sunu problème te pourtant koor da ngay résister da ngay bañ waaye bu koor gi jeexee nga delluwaat fi nga nekkoon loolu duñ ci yàgg ndeysaan saxaaba bi dafa toog ba yàgg ci yàgg rek mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam man man naafiq laa naafiq laa yonent bi ne ko subhanallah mu ne ko wallahi naafiq laa te naafiq du dugg àjjana innal munafiqin fi darik al asfali min an naar yonent bi ne ko lu tax mu ne ko su ma toogee yow imaan bi plein su ma fi jógee rek dem kër ga rek imaan bi rës yoneen bi ne ko saa fa saa ndànk-ndànk gis nga wallahi soo góorgóorloo nii ngay toogeek man sa imaan ngi yéeg soo ci saxee léegi nga gis malaaka yi waa ji daan toog ba ci yàgg mu ne fay leen nuyoo malaaka yaa ngi leen di nuyu ñu ngi nii fay leen nuyoo malaaka yaa ngi di leen nuyu parce que da cee sax xaaris yonent bi dafa xëy ne ko kayfa asbaxta yaa xaaris mu ne ko asbaxtu muminam billah noo xëyee mu ne dama xëy am imaan ñu ne ko xoolal bu baax li ngay wax nit lu mu wax war na ko laay fa ma alaamatu imaanik luy wane ne gëm nga mu ne ko talaqtu dunia wa staqbaltu l axira wa sumtu nahaari wa qumtu layaali fase naa àdduna jublu naa alaxira su bëccëgee damay woor su guddee damay julli noonu laa mel noonu laa mel ba bu ma xoolee kaw asmaan day mel ne maa ngi jàkkaarloog arshur rahman su ma xoolee ndeyjoor day mel ne maa ngi gis waa ajjana ñuy kontaan su ma xoolee càmmoñ day mel ne maa ngi gis waa safara ñu ngi ñu leen di mbugal yonent bi mu ne abdul nawar allahu qalba waa ji de yàlla moo leeral dënn bi ku bëgg a gis nitu aljana na xool waa ji mu ngi nit dem parce que daf ci sax kon jaamu yàlla il faut ñu sax ci il faut ñu góorgóorlu du question def geste yi du question woor weeru koor bam ñaata nit ngeen gis fii ci Grand Yoff ñu woor weeru koor bam jeex te amul njëriñ ñaata ñaata ngeen gis ku dem màkk ba ñëwaat nekk fii ci kenn xamul ñaata ngeen gis koo xam ne mu ngi julli fen xoole waa ji xam ne saa yu demee jàkk sàcc daal ah ñaata ngeen di gis ci laa wax ñuy ñuy jaamu yàlla mais du def benn taasir ci ñoom mu ne jaamu yàlla yooyu gis nga indi na ko wa tastawi fi dalika arkaanul islam min salaatin wa sawmin wa zakat wa hajj wa saairil amal allati yambagi biha al insan yabtaghi biha al insaan wajha allah wa yataharra shar'a jaamu yàlla yépp dafa ëmb ponk islaam yi kenol islaam yi kenol islaam mooy lan seede ne yàlla kenn la Muhammad yàllaa ko yónni julli koor aj màkka mboole mu ngi noonu yii nii mooy tax nga yéeg dem ci yàlla tabaraka wa taala nekk ku yéeg da ngay nit nit di yéege escalier jëm ci étage étape par étape noonu la doomu aadama di yéegi ci jaamu yàlla yi di dem miraaj la yéegukaay yi arkaanu islaam yi jaamu yàlla yi yéegukaay la da ngay yéeg di dem waaw benn waaye dañ ko jiñ sàcc ne ko yow yow la mu ne man ñu ne ko yow la ñu ngi doon boyal ay matt mu tëb rek na jëng ci biir màcc yi mu ne bu dee man la yàlla naa lakk mu ne cëkk di xool dara dal ko parce que du moom Xaalid ibnul Walid gars yi ne da ngay dégg ñu ne kuy naan poson boo ne Xaalid ibnul Walid poson bi du la rey du ngeen dégg ñu koy wax loolu musir gi di wax bokkaalekat yi ñu ne bo poson buñ la nee lii poson la soo ne Xaalid ibnul Walid poson du la rey non du question boobu Omar ibnul Xattaab da ngeen dégg ñu ne yonent bi nee na seytaane Omar bu jaaree nii seytaane bu ko gisee day daw non da ngeen dégg ñu ne malaaka yi dañoo rusoon Ousmane ibnu Affan mais ibaada yi la jaamu yàlla yi lañ def ah du du leneen lii dong lañ def julli waaye dañoo julliwul comme ñun Omar ibnul Xataab benn seytaane dafa jàpp benn xale bu jigéen di xale bi di caddi caddi ñu indil ko Omar Omar mu ne ah seytaane moo ko jàpp ñu ne waaw Omar jóg ne indi leen moo ko ñu indil ba mu jógee rek mu ne aoudu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim qaaf rek seytaane bi ne pott ci suuf mel ne benn mbote mu ñuul xaj bu ñuul di daw ne fas dem daw si ne coj mu ne ko uxruj yaa adu wallah mu daw Omar génn àdduna ay at xam nga seytaane day dund ay at seytaane day dund ay at seytaane bi àndoon ak yonent bi ba heure bi mu ngi dund mu ngi tudd Habu Habibul Haadi am na benn téere bu tudd Xiwaaru Saxafi ma jinnul muslim mooy dialogue presse bu benn jinne bu tuub def jinne baa ngi tudd Moustapha Kanjour nee na gis na Iblis ñaari yoon maamam yóbbu na ko fekk boobu mu ngi nekk liir mu ngi am téeméeri at ak juróom fukk waaw liir bi. téeméeri ak juróom fukk la maamam yóbbu ko ci iblis na ko iblis ñaanal te boobu liir la téeméeri ak juróom fukk la boobu liir la kon bu nekkee mag lu muy am kon jinne yi dañuy gudd fan Omar génn àdduna jinne bi daal na waat sarax ci ndaw si dugg am na benn waaye bu fekkee woon keroog bi Omar di mocc ndaw si xam na lu Omar jàngoon mu ne ah kii xaar leen ma ñëw mu dem jàpp ñëw daan ne aouzu billahi min asheytani bismillah qaaf jinne bi ne ko lasta Umar doo Umar de lan la waa ji jàng alquran lu Umar jàngoon mais mbir mi du gémmiñ ga mu génnee la ak dënn ba mu génnee foofu la mbir mi nekk mais même baat yi la mais génn waaye ñoo dul benn loolu mooy wax ci fekk ñu defaraat mbokk yi pas-pas yi xoolaat suñu bopp ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu taxawuñu ñu bañ a def mbir yi ay ay ay ay ay zes julli kaat ñaar rakka ñetti rakka woor fii saraxe fii nangam nangam déedéet wax na ci commencement bi alxudu toroxlu toroxlul yàlla mbir mi boo ci joxul yàlla gëddëm yàlla du ko jël yàlla dala koy delloo parce que bi nga koy def sellul da nga ko def ngir ñàkk da ngay dégg rek nañ jóg julli boog nañ julli boog nañ ko def ca pare boog kon ku luñ ciy jële dara dara gaan dóor ko mu daanu waaye ñaata ngay dégg la bañ nañ ko sax ba weeru koor dañ naan nañ dem jàkka rapide ku bañ station monté fa ngay dem kon am na jàkk yoo xam ne station day monté léegi nag ñooñu lu ñuy jëlee ci jaamu yàlla gi luñ ci jëlee dara kon maa ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh